ñun ñoo mën a defar ay kër ba nit ñi di ci yéemu ci taar lu nu jagleel yàlla nag wax dëgg yàlla taar du ci ëpp hmm. taar du ci looloo tax ah, lu ngeen fi gis rek ci wàllu xarañ ci wàllu taxawaay di leen ko Abdou Aziz waxee ci wàllu climatiseur ci wàllu euh, lumière ci wàllu aération ci wàllu sécurité ci bunt yi ci wàllu euh, euh, sécurité incendie ci wàllu toilette yu mat ci wàllu góor ñeeg jigéen ñi bañ a bokk fi ñuy nekk bañ a gisante bu ñuy dem ci toilette yi duñ gisante yooyu yëpp dafa nekk lu nga xamante ni euh, dafa fekk ñu xalaat ko ba nga xamante ni nii incha allah bu sottee lépp lu nga xam ne ni méngoo na ak charia méngoog sunna ci wàllu nu nuy defaree juma ak wan taxawaay la julli ci am ci biir juma mu méngoog moom sëriñ bi nag waxoon ñu nuyu na juma ji siggi ñetti couleur verte weex ak or na bunt yi bari na paranteer yi bari xam naa ne bi ngeen ñëwee gis ngeen ni bu fekkoon ni dañ doon wax architecte xanaa xam nan kan mooy architecte mhm. loola lépp nag li muy wund mooy la euh, sunu maam ju baax ja waxoon euh, maam Yusufa Diop ca Fass yàlla na yàlla yokk ko leeram wala boog maam Adima ko waxoon xam nga ku ko ci wax daal def ne woon bu yéene sellee incha allahu des na ko mën yéene bu sell nag weesuwul tabaxal sunu boroom néeg boo xam ni moom ko ko jagleel yéene bu sell booba moo tax bi nu jéemee yàlla sottal ba mu mel nii yàlla na yàlla wéy di sottal ba nga xamante ni liñ ci yéene ci àpp ba duñ ko tudd buñ ci eggee mu sotteeg jàmm monsieur le préfet ñëw nag ci jamono boo xamante ni nii ñun ñëpp ci lañ ko soxla woon parce que fii ak weer nawet sampu nawet ku ko tudd yaakaar taw yàlla na yàlla indi ndax ndaxu jàmm ndox mooma nag boo xoolee lay taw ci kaw jumaa ji taw fii yëpp ñu wara genn am fuñ ko dugal mu wara dem te du jor benn lorange ci ñi nga xamni ñoo dëkk ci watu nek halat loola tik nek xalaat bu nga xamanteni légui lañ ko wara xalaat motax ñew monsieur le préfet bi nek lu am solo boko xalaaté temik, tamit dafa nek ñew bu nga xamanteni ni fi ak ñetti wër ñu commencé tuddu gamu ku dëgmal gamu nak mu déssé la ñetti wër légui nga wara xalaat lan lan wara def ba gamu gi mëna am ci anam yi nga xamanteni ni jafé jafe-jafe ya bari dama ni nak jafé jafé du bari mm-hmm. waxuma jafé mm-hmm. jafé du am mm-hmm. man xawma fu jafé jafé amul ci aduna ku ko xam na mako wax ñen ñi sax da nan nanu ñaan jafé jafé ci tubab da nan la difficulté est une opportunité de progrès sunu rew nak jafé jafé la ñuy bañ motax boba ak boobaak léegi ñu ci nof noflaay parce que ki bëgg lu dul am ko ko son bëgg lu jafé jafé amul ku ko def ci aduna da sonn ndax la nga bëgg du am wañi lañ wax wante jafe-jafe du fi am inshallah du fi manké inshallah fi ak dund ngi fi ndax yalla wax ni daf ñoo wacc aduna ci jafe-jafe ñun ñu bëgg leneen am yalla du wéti bopam kon loola moy li nga xamantene Ekip teknik alamin équipe technique bi yëpp téw nañu gis ngeen soxla yi nak feñ na daanu soxla service technique yi nek ci département yi war nañu and ak ñom ci liggéey bi dañu nek nak ci course finale Manam mm-hmm. course relais la mm-hmm. dernier relayeur bu moo war a daw mhm. booba nañ daf ci am solo loolu la monsieur le préfet comprendre moo tax mu ñëw nii mhm. bala ñuy dem ba course bi jeex te fekk am na yu matul naa ñëw ànd ak ñi ma war a àndal mhm. ñuy xool ak équipe technique bi lan lan war a def ñun ñëpp ba nga xamante ni incha allah la ci ëpp ci ngëneel suñu borom dañu ko defar loolu daal monsieur le préfet ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay sant ak service yi nga àndal yëpp ci taxawaay bi di jéggalu ci naaju tàng wi ah, wante xam naa ni ñu ko tàmmalan ñu ko miin lan ah autouru ci biir coupole bi gën a kawe defe naa 34 mètres la Abdou Aziz 34 mètres 34 boo ko doon nat euh, dana toll ci 10 euh, étages wala 12 kon nga xam nga am idée euh, li nga xamante ni moo nekk ci jumaa ci ah dugg nga ci weddi gis bokku ca dugg nañ ci li mu kawe macha allah moo tax euh, la muy laaj boo koy climatiser du bari parce que lu mu gën a tàng la ngay consommer ci énergie pour mu sedd bari mais bu fekkee ni am nga température ambiante bu mel nii seddal ko dee daal di yomb la ngay consommer ci courant du du du jafe loolu yépp nekk na lu nga xamante nii lu nu yóbbaale woon la moo tax kilifa gi moo ñu ne woon na jumaa ji siggi loolu la ñu waxoon waaw ci biir dana jël ñaar fukk junni vingt mille ci biti mën naa jël vingt mille boo ko jëlee muy quarante mille à peu près jusqu'à cinquante mille foo mbooloo mu cinquante mille personnes mën a daja nag moo toxoon ñu ni foog ñu xalaat wàllu sécurité mais junju nga préfet na ko maire junju na ko cinquante mille personnes bu nu génnee fan la ñuy jaar ku nekk bëgg a jëm sa kër dafay indi ni nécessairement dana am restructuration alentouru mosquée bi wante nag ban ca tolloo dañuy soxla du am rakk nanu liggéey lii ba pare buñ ko liggéeyee ba pare la ca des ñu door koy song waxtaan kook ñun ko digaaleel parce que association bi ni muy doxale mooy du tëb rek ni liyee am déedéet ñan ko séqal dañuy woote waxtaan seet na mu gëne na mu gën a rafete ñu defe ko président Mastar Cissé dafay yàgg di wax nii jumaa ji incha allahu képp kun ko séqal duñ la deseel benn ax ci wàllu wareef moy ci bir aktiviti ji ak ci biti jumaa ji loolu mooy sunu ligne directrice moy sunu philosophie moy sunu ligne de conduite déggoo manela du nu tuddu dat yen nak da ngeen bëgg bu leen nit waxe ngeen wax ngeen mu wéddi bopam ci jotaay mënu ma wax lolou ba paré wéddi sama bop fi ak ay weer inshallah dana paré

Abdou Aziz wax na leen ko ci wàllu jumaa ji bu paree lu mel ni ku ko defar entretien ak maintenance dana ca war entretien ak maintenance créé nan société boo xamante ni ñu ngi ko tuddee ajjana maintenance recruter nan ay xale discuter ak euh, ONFP mu ñëw fi identifier leen mooy office bi yore formation professionnelle ci Sénégal commencé leen former ñu boole leen ak entreprise yi ku ci nekk ci corps de métier ba nga nekk électricité froid nangam nangam nga liggéey ak entreprise yi ba xam ni nu liggéeyee installation yi ba xam ni ñoom buñ fu jógee ëllëg buñ leen soxlaa dootul jaar ñu leen di woowi mais ñi fi nekk fekk nañu am xam-xam bi loolu lépp nekk na doxalin ah employé jumaa ji la ñuy doon société la ajana maintenance comme société moderne yi nekk ci réew mi da leen di recruter di leen fay Abdou Aziz wax na leen doxalin bi su tendre jumaa ji

jamono nag laaj na leneen parce que ñii xalaat ingénierie financière ci société yi koo ci topp mu ngoon jotee am na kër kër diine bu muy ñibbi ah nañ ko mën a defaree ñi ngay liggéeyal nga defal ko sa bopp looloo tax ñu doxale noonu forage bii débit bi mu am maanaam li muy génn ci ndox ëpp na soxla jumaa ji waaw lu tax duñu xalaat ëllëg euh, kire ne nga am leneen ne nga am leneen ne nga am ah lu tax du nu wut suñu butéelu ndox yu nga xamante ni tur wa nangam nangam nangam nangam bu ko defee moom tamit mu indi loo xam ne day dugg ci biir alors yooyu yëpp dafa nekk lu nga xamante ni nii ñi ngi koy xalaat ñi ngi koy tëral lii daal njëlbeen la tànku kanam la tànk gannaaw yaa ngi ñëw incha allah. Abdou Aziz wax na leen ko xam nga yéen nag. nit da leen di wax dara ba paré ngeen ni ko il faut nga répéter Abdou Aziz wax na len ni l'en. Fi dafa am salle bo nga Sonatel moko équipé ak des fibres optiques yu nga xamanteni ni insha allah bu imam di khutba fi bo nek Kolda bo connecté wo setan khutba bi waaw kon pour wax len ni l'en, euh, c'est une mosquée intelligente mo li len mu lay wax waaw mais ça va être une mosquée aussi verte parce que ay garab sax daan ko fi def li wër jumaa ji yëpp ak enceinte jumaa ji sa va être une mosquée attractive gis ngeen euh, macha allah euh, rafetaay bi ci nekk nit fu nekk dana jóge di ko seeti parce que boo demee ci yeneen dëkk yi tourisme religieux lan moo koy indi dem seeti lu nga xamante ni ku ko gis sa xol sedd préfet bi mu duggee tey bi mu teenee xool dafa ma njëkk wax ne ma lii de ku ko def diine yëpp nga ko defal jullit yëpp nga defal askan wi yëpp nga ko defal xol yëpp ay sedd ko defee ñun ci Sénégal nii mu amee fii amee ko ci yeneen bërëb ci Sénégal dafa war a yaatu parce que lii mooy sunu xar baax lii mooy sunu xar baax lii mooy sunu moomeel nit nag la mu moom wax dëgg yàlla war na ko fonk leneen loo fonk baax na wante la nga moom na ko gën a fonk foofu la ñuy xamee li wolof di wax ful la waaw merci ñi ñëw di xool liggéey bi loolu nag dafa am lu ko waral

le xale général de Tidiane sëñ Babacar Sy Mansour ñu koy ñaanal di ko nuyu di ko ziara di ko ñaanal gudd fan ak wér kon loolu rek tax na bu ñu fi nekkee di administration di préfet jiite administration bi jiite service technique yi war nañu ñëw ci seen wet pour jàppale leen ci li nga xamante ne bii mooy sunu sunu sunu sunu sunu wàll beneen bi mooy xam ngeen ne depuis bi mu tàmbalee projet bi état du Sénégal dafa mës a ànd ak comité bi dafa mas a nekk ci wetu xalifa bi pour jàppale ko ci ci liggéey bi ci fànn yëpp ba ci la président son excellence Bassirou Diomaye Faye barki démb bi ñëwee seet si le xalifa général des Tidianes daf ko wax ne ko dinañ la jàppale ci li nga xamante ne bii mooy liggéeyu jumaa ji ba mu àgg ak jàmm kon nag ñun bu ko fi nekkalee war na pour jëmmal loolu ñu ñëw fii di seet si liggéey bi di xool lan la ñu soxla aussi ci service technique màcc euh, euh, gàlloo ko ñu mën leen si jàppale loolu bokk na ci

xel war naa daj ci lu leen di aar bu yàlla defee mardi su dara am rek rek loo baag loolu lépp war nañ ci anticiper ba fekk ne matukaay yëpp jël nañ ko ba buñ ci àggee ñaan ñu ko yàlla waaye dana fekk lépp dina dina dina yomb loolu aussi bokk na ci li ñu indi moo tax ñu ànd ak mboolem service technique yi kenn ku nekk di laaj li ayu ci sa wàllu liggéey ndax waajal nañ li ci jëm moo tax service yi di poser ay questions ñuy répondre ndax dañoo ne dañuy maanaam fagaru lu ñu bàyyi ba ñu tabax ba noppi ñu naan bunt bii kat dañ ko taj nañu yàqali fii waaye dañuy ànd ak ñoom di anti di toog naan anticipation boo gisee ci biir euh, visite bi ay service ñu ngi posé ay questions boo jëlee exemple bi ma joxe sànq rek sapeur pompier ñoom dañuy wax ne gis nañu portique yi mais bu ñu sañoon euh, ñoom comme dañu am ay ay oto yu mag yi nga xamante ne ñooy fay lakk te dañoo oto yi dañoo xaw a yaatu ba pare njoole nañu fexee wutal leen ay entrée spéciale yoo xamante ne bi ñoom fa la ñu mën a jaar pour que su fekkee am na intervention ñu mën a ñëw dugg génn sans problème xam nga loolu c'est un exemple patant ci li nga xamante ne bii moo ne dañuy fagaru anticiper balay dara dara di xew waaye daal pour tënk ñu ngi wax sunu mbégte ci li ñu fi fekk ndax waxoon naa ko ci sama visite bu njëkk ba li ñu fi fekk dal na sunu xel mën naa ne sax wax dë yàlla sedd na sunu xol ndax sag la fierte la ci lu toll nii ñu sumb ko ci njiital la xale général de Tidiane wax naa ko ak ñi fi jiitu loola sa xadara bépp ñoo koy ñoo koy sagoo waaye tam may beral cant tamit l'association Adiana jamaatu Nour As-Sunniya te la ministre Mamadou Makhtar Cissé jiite ko ñu koy nuyu au passage ci seen taxawaay ndax lii su amee kët ginnaaw yàlla seen taxawaay mu ngi ci biir bu baax a baax kon nag lii nga xam ne te ni bii buñ la waxee ne la ci ñetti at lañ ko liggéey danga nga naan loolu mënta nekk waaye nag dañoo dañu sacrifié wu guddi ak bëccëg noppaluwuñu lépp loo xamante ne bii xalifa bi bëgg na ko loolu ca la ca la ñu nekk kon nag maa ngi leen di ñoom tamit di leen sant bu wax di leen gërëm di wax également tamit ne ñun lépp lu ñu doon xalaat ci ay matuwaay fekk na ñoom déjà prévoir nañ ko ci fànn yëpp nag loolu kon aussi rassuré nañu di wax ne aussi les service aussi ñu ngi ci seen disposition lépp loo xam ne soxla nañ ko te moo xam sapeur war ko def wala eaux et forêt war ko def ci wàllu aménagement vert wala wala Sonaged war ko def ci wàllu setal ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu yëpp ñu ngi ci seen disposition fu leen soxla dinañ ñëw ànd ak ñoom liggéey ba keroog muy àgg bu àggee tamit incha allah tamit wàllu entretien baak toppatoo ba loolu day wéy ñu tamit incha allah ñu ànd ko ñoom euh, naka noonu rek la la fas yéene demee maa ngi santaat ñëpp vraiment di gërëm ñëpp di wax sunu sunu mbégte di wax également di gërëm aussi la presse qui de manière spontanée s'est levé pour xam nañ ne importance activité pour ñëw couvrir ko ñoom tamit vraiment ñu ngi leen di sant di gërëm mboolem service service di gërëm aussi le monsieur le maire qui était avec nous tay tam wax nañ ci waxtaan nañ ci lu am solo ci ay lo xamantene bi dañ danañ ci waxtaan parce que bo gisee question wu manam ndox mi wacc fi du toll ni ndox ma fay wacc ndax xam ne dañ koy dañ koy dalé li ñu pavé ko ndox ma fay wacc kon war nañ xalaat fan lay jëm ak nan lañ koy évacuer ba mu mën a génn wu war ko yóbbu fañ ko war a yóbbu assainissement des eaux pluviales loolu bokk na ci li ñu waxtaane ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne bi dina laaj yeneen waxtaan ak yeneen ndaje ak service yi ko seq pour que balaa ñu caa àgg fekk disposition yëpp euh, jël nañ ko rawatina nawet bi nga xamante ne bii daanaka dëgg ma seen kon loolu lépp ñu ngi ciy ñu ngi ciy liggéey te incha allah bala yàgg dinañ ci am ay résultats yi nga xamante ne bii moom lañ ci